mooy kan local la ñu ñoo ko moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consomé ko Sénégal KPR kan gi yegsi na naa di la amal rek. Serigne mbëri yi nii këlal mbëri yi. Serigne door nga sa kaala tey de. <laughs> ah bës. di ree. daa mel tey le moral est bon. non le moral est dal na. waaw sant rek di ñaan yàlla moo tali lépp rek. ah oui incha allah. mais am mbër ngeen am kenn ko pronostiqué. mbër la daal nu mu la mun a wax. parce que amul exactitude. mbër la daal. bu ñu wootee ñëpp dinañ xam ne mbër la bu soobee yàlla. ah incha ay ca noonu la demee Pape Socé bëgg naa la. fii la Père Bokar. na pare ngeen. non pare na. ah pare na. pare na waaw. Pikine moom fu mu toll nii. Ah. bi rek lañ soxla. mairie bi kese te du booy ñaam moo ñu koy xañ. le fils de Dégol. moo yow kooku du dara kooku soobu maan la. yow noo wax ne noonu ngeen koy daane. Tyson ah dañ koy Tyson. Tyson ah Tyson bu ñu koy daan daa ni dañ ko mbootoon ma nag. kanam gi la ah gi dëppoo. waaw ñu loolu. Bak loo wax ci loolu. loo wax ci li moom. ah waaye ma Massila la muy def yow xoolal ma Massila la ma rek la muy def tey. galaas ndox. bés bi tey dafa mel ni am na lu laa laaj de sarax yi. tey loolu non gars yi ñu ngi cëree Boucar. ah waaw ci bu baax a baax. daa dara mu sedd de. non non affaire lamb bul bàyyi. Ah. li ngay bàyyi moo lay lor. ah doo waroon waroon négliger dara. waaw non non jarul négliger defal li war a def rek. Mm-hmm. waaw. dañuy ñaan daal yàlla may ñu dam rek. incha mu ngi ñëw Paanu Ndao. lii lii Masila te Masila nag moom la ñuy yéen paan bi loolu ci gën a garaaw Masila mooy yéenu paan yi di dox ak moom talal naa ko micro mu ne ma le set lay wax mu ne ma bëggoon le rek lay wax Masila ngi noonu borom Tiwaawan ak li ko wër waaye cay bés bi. tey ma si la balaa génn si bés le premier janvier bi nee naa la bés bii du mën a yomb. Eh, alaaji alaaji amet noonu. avancé ko béykat bi yéeg. voilà 0 pour cent bi foo ko teg. Ameth 100 bi foo ko teg. Pikine suñuy noos lañ suñuy noos. noos waaw. Ah. waaw Pikine jàpp nga naan Pikine suñuy noos lañ loolu du ko arrangé. cey bii bés. nee naa la tey bés bi du yomb. yàlla nañu yàlla may ndam. xoolal ma buntu kër Modou Lo. mbooloo. Sam bëgg naa la. ci loo ne. lépp too fee. xanaa nekkee ko. nekk naa ba suur. da ngaa tiit kon. war añ ba suur. kon da ngaa tiit. war reer nga naan ma damaa tiit lan laa tiit. ah lan laa tiit. tiitoo dal lan laa ah, na. ah Modou ngay ñëw de. borom bés baa ngi ñëw. Modou ngay ñëw. borom bés baa ngi noonu di ñëw. nee naa la tey bés bi du yomb nee na bés boo gis bés lay fay Modou Lo yegg si na xaw ma Lac Rose la jege xaw ma Yoff la jege Modou Lo yegg si na de. Modou Lo ñëw na. Modou Lo ñëw na. Modou Lo ñëw na. Modou Lo yegg si na le roi des arènes est là Modou Lo yegg si na fii si këram mu ci kanam toog waaw jàmm si leen Bilal jàmm si leen Bilal jàmm si leen jàmm si leen jàmm si leen kaay kaay jàmm si leen Bilal. bëri si bëri si jàmm si leen. bëri si bëri si jàmm si leen. nam naa la. mais Thionck Essyl. Thionck Essyl ancien gloire. waaw ah, mais yow dama ancien gloire. yow ak Modou Lo yàgg ngeen. waaw ah, dëgg la am na loo xam ci moom. bés bi. saxal dal na ci. ah mais làmb la rek làmb la comme yeneen làmb yi rek moom moom làmb moom. làmb moom làmb moom comme entraînement si moom la wax dëgg fa yàlla. Ah. ah comme entraînement si moom nga wax. waaw comme entraînement si moom la. ah loolu mbaa dina yomb. ah waaw ba yow yomb yow tamit yow. comme yeneen làmb yi la rek. entraînement des fois day yomb de. non non non ay yow. Bichou bis am na ko. ah gis na ko quoi Bichou mi ngi soog a ñëw mi ngi soog a yeewu. waaw waaw kay. man kay demaat ci sax pression la waaw mi ngi soog a yeewu kay. mbër bu war a bëri ji door a ñëw heure bii. midi moo jot. midi nga mel ne xaw ma lan mi ngi soog a yeewu nga mel ne lan. xelam dafa dàngee. mais bi ngeen war a bëril boo oh, ñaa. xam nañ ko am na technique mun na bëri macha allah. waaw waaw xam naa. Ah. day jéem a sàcc te booy bi tey du ko may dara. du ko may dara du ko may dara. maa ngi lay bëgg. waaw puissance. ay ca ñaa ngi noonu ñaa ziar nañ la delloo ziar sama waa ji ñaa tey da ngeen naaja ñëw non ñun dañoo yàgg naaja nag sa jour ni lay demee de ngeen war a bëri combat royal war a bëri day fanaan kër ma euh, day fanaan euh, Lac Rose waaw euh, ndekkee a bëri combat royal war a bëri bu boo ñaa di yeewu midi loolu du problème xam nga mi boo xoolee combat bi passé moo Ama Baldé daanaka 13 heures la fi ñëw moom la gënoon naaj sax ah mais ki ngeen war a bëri xam ngeen ngeen war a bëri la. Ah. kooku ah. a bëri laa wax xale bi. loolu lii final la demi final bi la woon keroog euh, contre Ama Baldé dañuy jouer final day. incha allah mbër kenn mënu pronostic la. loolu du problème. parce que mënoon ne lii la mënee. mbër mi day ngemb. waaw ah. duñu gis baar duñu takkusaan doo dem làmb ja. ah incha allah ayca kooku ñaaxarañ loo. cay bi. leneen la bés bi du yomb de. fii ci buntu kër Lo ay xoolal ma mbooloo ma nee naa la tey bés bi du yomb buntu kër Modou Lo gaa yaa nga noona gaa yaa nga noona taxaw di xaar wala ma ne bàyyi pël na mu naa naka affaire yi. maa ngi am jàmm. le moral est bon. waaw maa ngi sant macha allah. seen xel dal na. waaw dal na ko. ah. xaw nañu léegi pare. ñu xaw nañu léegi mbokkal. pare ngeen. wax dëgg yàlla yàlla xam na loolu dañu yaakaar li des mooy dem jàpp dem yi daal incha allah li ñu ñëwaat incha allah xam ngeen mbër bi ngeen war a bëreel. Ah? ki ngeen war a bëreel xam ngeen. boo ñaaw bu baax. ah bien sûr xam nga bu baax. leen la mu ma la expliqué léegi leen la moo des dafay dem dem bëre ji daan ko ñëw ñëwaat passé incha allah. à suivre yow. waaw. ayca say jàmbaar yee Boucar maa ngi lay ziar. dëgg naa la. waaw ci dara kay. dëgg suba si. waaye sant bu baax. pare moom pare nañ ko waaw. waxal bu baax wala ndekkee ko. non nañ de. wala da ngaa xiif. ah non da sama xel wala da ngaa tiit. sama xel dal rek sama xel dal quoi sama moo dal quoi. sa xel dal. sama xel dal gën a a bëri booy ñaar. oui mbër bi gën a naqaree bëri Sénégal. ah non non mbër bu a yomb bëreel. sa xel di sa sa dal. waaw parce li Modou entraîné moo dal sama xel quoi moo tax. muy bëri di xeex di daan. waaw looloo looloo dal sama xel. ah li Modou entraîné. waaw ah, coono yi mu daj ci combat bi. moo hmm. tax sama xel dal quoi. ah. pare nga naa 100 pour cent. ah pare nañ 1000 pour cent sax. ah oui. looy sensibiliser supporters yi xale yi non violence. waaw di woo ci non violence xam nga ñu a en masse. waaw ngeen di jàppale seen mbër. xam nga ñu dem def fulaak fayda du ma ko daan ko ñu gisee incha allah. bu ko waxee yomb na de. noonu lay demee bu neexee yàlla. waaw ah, bu def daanu boo ah. ñaan loolu amul. waaw il paraît que day xeex de il paraît que mën na. non mënul xeex mosoo gis mu kaaw ne mbër. mosoo gis mu dóor mbër mu daanu. boo ñaa mën na xeex mais mosul dóor mbër mu daanu. mais xam nga mu ne xeex mu daanu des fois. ay loxo bu diis am sens. voilà léegi kon loxoom diisul te xam nga xeexu lamb dafa am spécial. Ah. xeexu box am ay kick box yi am. waaw ah. xeexu lamb Modou moo ko dàq. oui xeexu lamb Modou moo ko dàq moo ko dàq bëre ay moroom lañ quoi damay dégg ñu ah, ah, ah, jël naa ko mu ne ma Sénégal ba daj moo dóor rek moo fi def bëre dóor. moo fi def bëre dóor voilà. waaw moom Balla aussi. Adama Diouf dama nama loolu waaw naa lay bëggee. waaw la rëy amal. Sénégal ka kan ngi yegg si na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo. KAPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommé ko.